di sant bu baax mbokki jullit yëpp euh, mbokki Sénégal yëpp ñu ngi leen nuyu baax di leen seer man maa ngi tudd Ibrahima Dia doonoon ki àndoon ak Alhaji Cheikh mi demoon ci concours Dubaï bi man maay Serigne Daara maa ko doon jàngal concours bi moom métti woon na ndax concours boo xam ne am na ñaar fukki at ak juróom euh, te bu ñu xool ci xeeti concours yi am ci aduna Mm, yaakaar naa daanaka ñëpp dëppoo nañ ci ne mooy numéro un ci xeeti concours yi am ci wàllu alxuraan ci àdduna bépp ci nattukaay yi ñu nattee concours yëpp nag boo ko xoolee ak wàll goo mën di xool rek ci walla goo xam ne moom lañu ñu war nattee concours rek mooy bi gën a euh, rëy mooy bi gën a mag mooy bi gën a yaatu ci bokk ndax yaakaar naa continent yi juróomi continent yi amul benn bu des benn bu ne am na ko fa bàyyi koo ñëw Euh, juróom benn fukki réew ak juróom-ñaar ñoo ci ñëwoon boo ñëwee dañ lay defal benn test boo xam ne dañu xool ndax yow mokkal nga ak sax sam njàng ndax rafet na bu fekkee sa njàng rafet na ci test bu njëkk boobu ñu lay defal euh, ci lañ lay sélectionné ngir nga war a bokk nag ci phase nation maanaam euh, bi nga xam ni mooy bu terminal bi bi nga xam ne mooy bi mujj léegi nag bi ñu defee test yooyu am na ñeent ñoo xam dañoo euh, wadd ñoom daal dellu seen réew juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñoo bokkoon ci concours bi concours bu jafe woon la lool sax ñu ñi fay teew ay kàngam la ñu doon ñu ràññi ko la ñu doon ñoo xam ni ndax da ci am réew yoo xam ne ni ñuy waajalee concours international daal yéeme mooy jamono bii concours bi daw nii ñoom am na réew yoo xam ni ñoom seen kawar a teew ci bële tàmbali nañ ko waajal bu yàgg ndax xëy na bu dee ci senegal ñiy jékki-jékki rek dégg ñu ne diw sàngam dem na concours waaye réew yi ci des dañoo nosu lool ci wàll wi ba xam ni kay dem concours kilifa ya ngank ci wàllu njàng ci dëkk ba te xereñ ci ñooña lañ ko teg seen loxo ñu yor ko lu mat at daanaka di ko waajal te ñooña ay kàngam la ñu doon ñoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey bu dee concours bii ni mu demee ndax concours buñ koy tànn mën naa jaar ci ñeenti euh, anam bu ñu tànn ab nit mu war dem concours ci dëkk waa concours booba mën nañoo yónnee invitation ba état ba état ba teg ko ca loxo ñam teg loola ñi tànn waa concours booba it mën nañoo euh, jaarale seen invitation ci lu mel ni concours ba gën a fës ca réew mooma comme tey ñi tàllaloon loxo Sénico ne ko yow lañ yow yaa ñi tànnal wala ab sénégalais bu nekk fii doon boroom xam-xam bu mag ràññiku waa waa dëkk booba yónnee ko invitation bi ne ko yaa ñuy tànnal sa réew wala boroom xam-xam boobu sénégalais la waaye ma ngi ci réew mooma kon bu dee waaw bu dee bu dee kii moom niñ ko tànnee euh, ñoom waa Dubaay imam boo xam ne sénégalais la nekk foofa moom lañ teg loxoom ci loolu kooku nag buy tànn moom jaareewut ci jaare jaareewut ci ab concours jaareewut ci dara moom xam na senegal day gëstu làmb xam na njàng ba am kum am yaakaar ci moom mu tànn ko kon kii ak tànnam noonu la demee. waaw doole gën a dooleel daara yi moom yaakaar na euh, bu fekkee dañoo bàyyi ba heure bi ñuy wax ndax jutut xanaa kon daa weesu waaye loolu moom moo doonoon li nga xam ne moom la ñu waroon a jiital ci bu ñu samp am réew te jàpp naa ne buñ bëggee jàmm ji yaatu barke bi tasaaroo fi réew mi jëm kanam dañuy fullaal li ëpp doole ci àdduna waa réew mu ne rek. Euh, day fullaal la ëpp doole ci àdduna te mooy alquran ndax alquran aw melokaan la ci suñu borom